ci dara man man sawaay donc da ngay gis ne Sénégal man sax loolu ndeysaan la ma cay fekk du bari ëllëg te daa yàggut <laughs> lan nga ni <laughs> maa ngi rëcc di wax lu ma xamut man da man man man xéewaluk Serigne Saliou laa gu ma dimbale rek sama benn waay wax naa ko ko ñuy toog di wax di wax di wax ma ne ko mosoo gis nit kuy seetal boppam ba ne la man duma gudd fan waaw waaw te ñiy xam ñi am dara basiira xam nañ man du ma fenn sawaay te man yii jaraluma yenn yi bu ma ci mënta dimbale nit ñi rek damay dem. mais sëñ bi li ñu lay ñaan balaa ngaa dem mooy <laughs> euh, xale yëpp a ngi bind ci commentaire bi. ndeysaan borom dëkk bi li ñu lay ñaan mooy waxu gudd fan boobu. Mhm. léegi yan sarax la mën di génnee euh, bu bëggee gudd fan kanam. waaw la ca gën. Mhm. nga woote ñu wax la fi ngay jaar. puisque tëb rek mayem am na sarax yoo xam ne nag li wàcci laahi taala moom sarax bu dul dara dafa baax ñépp ko war a def waaye it sarax bi lay ubbi ak bi lay tëj hmm, loolu nag mbir la bu leen di tëb di def loo xam ne man bëgguma ndaw ñi di def erreur te man ñëpp dañ maa màgg suñ man léegi man maire yi sax léegi ñoo ma gën a bëgg waxuma la ndaw ñi wax ñu ne sëñ Mara sëñ boobu fu ma jaar mais man bu ma demee ba mënumaa defanteeg yéen lii lan laay def di leen wax seeni di leen jàppale ngeen koy def te yàlla tax bi ci topp gis nga réew mii di Sénégal mhm. ci ndaw ñi mhm. nañ moytu fitna ci wàllum jamantey paaka hmm? waxoon naa leen ko de mais waxoon nga ko moytu leen heure ba daa jot nag sëkk nii tembe ne kaalu jamante paaka jam mii ngi doog a jot nee naa leen at mi dafa tàng gëmoo leen ma bu ma waxee lépp dañ ci yegg waaw fi paaka yaa ngi génn jaas yaa ngi génn ça fait sax ma alerte wax leen na leen la ma leen doon wax yegg si na képp kuy kilifa na nga jóg fegu nga téye say ndaw ci wax boo ko mënee waaye la ma ne woon jafe-jafe yii ci ndaw ñi bokk ak nit def chaque jour ñu yónnee ma kii yee kii nanga ma ko ray nanga ma ko ray app bi nag daa jot te ñëpp laay yéene jàmm ci Sénégal man bu ma demee ba mënumaa wax lii rek yàlla na ma yàlla faat. c'est vrai que ray na sëñ Bara dafa bari di jë sama yaram tàng na <laughs> sa yaram tàng na tey li nga bi sax doyu la c'est vrai que yaakaar naa ni da nga namoon seet tey mhm. da nga namoon seet waaw ba noppi nam nam ma ndokkeel suñu armée bi mhm. ndax man maay soldaaru Serigne Saliou ba noppi solo nii bi may ibbi maa ngi koy fàttaliwaat ca laay tëje di leen waxee mais mais mais respect bi <laughs> waaw moom moom moom colonel soldaaru Serigne Saliou bi demoon xel ko mi ngi leen di ndokkeel ci avril bi. Mm. bu dee dugg naa ci avril te defuma nii te ma am ci ay soppe. Mm. am ci ay ñu baax. Mm. te salué wu ma leen rek. reste bi day des. d'accord te lum tuuti tuuti am na ñu may déglu am na ñoo xam ne dañ ma bëgg ci ñoom. ba noppi dañ maa jox waaw wàccuwaay yu war ci man. moo tax ma leen di saluer Sénégal ku sañoon doon militaire. sëñ bi. waaw lenn benn question bi ma lay posé laataa ngay dem mooy. lan dimbali ma wax ma. Mhm. nit ki nga xamante ne bi dafa bëgg jubook borom këram. wala boroom këram daf ko wan ginnaawam. wala soxnaam daf ko wan ginnaaw. lan la mën a def sarax lay génnee wala ñaan lu la. ci yow nit ki man ngaa toog fi nga toog sëñ Mara xoolal la say sarax génneel la ko paa mu jox la nga takk paa mu jox la nga naan am na ñoo xam ne nag fii ak takkuwuñ seen aajo du faju hmm. waaye gis nga jamono ji dafa tàng ren ci diggante sëy yi di tas. góor ak jigéen. Ah dafa dafa tàng waaw. dafa bëri ay yu war a ba ci artistes yi artistes yi. barke ah yonent yàlla Muhammad 2023 bii lay am. ay sëy waaw ci artistes yi. moom it day bi ci topp mooy. <laughs> Euh, maa ngi ñaan suñu mbokki sëfoor si encore une fois bi mooy sama dernier ñaan ci yéen nag bisu mercredi. Mm-hmm. ak àjjuma dafa diis ci weeru. Euh, nu mu ñu ngi ci kii bi euh, afril mais avril ba mais ba juin ñu am ci ay ñaari fan ñetti fan. Mhm. képp kuy daw ci tali bi moytul. mercredi ak àjjuma. ba noppi doxub timis da cee dansé am na ngelaw luy dugg te xale bu mu ci dugg boo yeexee doo jógaat. Hmm? barke alxuraanu karim man dëkk bi laay waxal waxuma ak benn nit. loolu lépp dafay feeñ ci réew mi xamar biddiw bi boo koy xool ak fi yëf yu toll. da ngay jekki-jekki nga ne waaye yéen est-ce que nit ñi ñi ngi seetlu wala ñi ngi xam seen bopp te diggante relation yi dafay tàng jër du ngeen defante dara waaye du ngeen déggoo waaw te ku ci ah loolu moom bëgguma ko wax sax ndax it <laughs> damaa bañ a xool li góom. te <laughs> ah man daal. <laughs> wax ko rek. xolli ko góom te it. samaw askan doyloo giñ ma doyloo ba fi ñëpp di ma topp yàlla na bu ma ñëwee wax leen waxi nit ba ci suñu mbokk diaspora bi surtout ñoom doo leen defal dara ñu lay woo di la yónnee sa alal nga xam ne yow boo toogul di ñaan sax ñoom bëgg giñ la bëgg damay jekki-jekki ma tëju jooy ma ne man yàlla lan laa la defal ba nga may ma lii yàlla lan laa la defal ba nga may ma sénégalais yi bu ma waxee ñu déglu ma ba noppi bu ma ne leen lii la ñu def ko. parce que li nga leen di wax koy gis. sëñ Mara aussi kon alhamdulilahi rabbil alamin xam nga. léeg-léeg nit sax dangay wax ñuy gis nit ñi di la bañ man sëriñ si ma daan kiir critiquer léegi ñoo nekk ci suuf naan pourtant moom de sax moom moom daal li muy wax li muy tombé daa bari. xam naa am na lu ko am na lu ko am na lu am na lu ko yàlla may. Hmm. ma ne leen man nangul naa leen li ngeen di wax waaye man tamit li ma yàlla may. soxlu ma ngeen nangul ma ko dama koy jëf ba sénégal yi na waaw. te est-ce que xam nga benn mbir. yu bari yi ma def ci révélation ci sëriñ man ci ci ci ci ci at mii ak at tey at mi ciy topp li ma ciy defaat ku yàlla bind ci sëriñ doo ko def ci seet sa waaye man damaa toog ci lu wóor macha allah fëgguma sama dënn waaye yàlla moo ma ko may. def na lu bari loo barke yonent yàlla Muhammad li ma war a gis ci réew mi ci ay révélation yuy ñëw ak fi ma war a teg sama tànk déggoo li ma la wax ba ni may wax ak yow Macky Sall déggoo li ma la wax damaa gis moom mu ne waaw pour jëm ci élection yi dañ na troisième mandat dañ koy bañ ba noppi ma gis Macky Sall sol mbubb di dem. <laughs> loolu moom neex kenn. dañ ne troisième mandat dañ koy bañ ba noppi man ma liggéey la ma doon liggéey ba dóor ko ne tëll teg gis Macky Sall moom mu ne day bokk ci élection yi. sol mbubu di dem di vote bokk ci élection yi laa wax candidature usmaan Sonko moo gën a leeragun ci jamono ji may wax jaw ci senegal Ah waaw donc des na gàllankoor yi am na. waaye ci yii may wax jaw nii fii ma toog nii bu ma ku ma taajaloon kaamil ma waat ko. ne candidature am leer na. candidat candidature Macky Sall ña nga ca wu metti man bu mag sañoon dama naan gars li ñuy wax dama koy dégg. Idi. jaar na fële Karim. Idy ak Macky gisoo seen tas ñoom ci boppam dafa am lu lu lu mu war a xam li ma yàlla wan li ma yàlla wan du ma fen de. 2010 <laughs> gisum 2019 <laughs> laa ko waxoon sama benn xarit <laughs> muy ree ma ne ko ah, man de euh, pale bi gisuma ci Idy Macky laa ci gis. waa ji na ma yow nàngam te booba far ànduma ak Macky de te seen mi ngi fi retour lépp a ngi fi retour yaa ngi fi ñu ne ma laat mën na leen deuxième tour du am waa la ma gisoon loola Sénégal yi dañu doog a ci sëñ Mara waaye man Idi gisuma ko foofu. gisoo ko ci palais dama ko Idi Idi Idi Idi Idi damaa bañ a xolli góom waaye am na lu bari lu ma gis ci moom ci wàllum politique. moo tax sa Seck. ba sa jotaay bu mujj de waxoon nga ne waa Pastef nga gis. ci ci ci palais bi même bu dul. bu dul Sonko ka fay toog sonkoo ka fay teg. Idrissa Seck ku war a def attention la baa nga ko. Ah waaw. gis naa ko sant sàll ku ñu tëj kaso. Hmm? waaw. <laughs> leen ma ci wax ji de. Hmm? gis naa it ku sant fay ku ñu tëj kaso. waxuma ne Macky Sall la nag de baal leen ma de waxuma ne Macky Sall la de. da nga gis ay waxum damaa gis lëbëj sa waay poussière bii ma gis ak li ma junjuñ solub te ni ñëw toog fii ku jàpp ne ay caaxaan la xamoo sëñ Mara man sama lépp baatin la barke yonent yàlla Muhammad. mais sëñ bi da nga ay arrestation yu bari ay nit ñu jàpp. jàppe bi tàmbaleegul te Antoine Diome damaa gis mook Ousmane Sonko seen diggante antuwaan Diome ak usmaan ak Ousmane Sonko barke yonent yàlla Mouhamed antuwaan dox paa wutali Ousmane Sonko xaw ma nag la mu fa doon wut foofu laa yam waaye damaa gis antuwaan jëlit lu mel ni lekk di ko jox usmaan Sonko hmm. waaw mel ni dañoo nekk ci jàmm. loolu nag ñi ma gën a sori ci wàllum gis-gis amaana ñoom xam nañ loolu waaye antuwaan ak Ousmane Sonko ci boppam man réew mi li ma fiy gis lépp bu ma ko doon wax àdduna tukki barke yonent yàlla Muhammad nii laa ko gisee Antoine ak Ousmane Sonko te Antoine a fekki. mais man de boo waxoon Ousmane a fekki daf may xaw moo fekki. Ousmane fekki siwul moo tax Macky Sall dafa am lu ma toogoon fii wax ko ñu bari di ma ree ma ne leen président Macky Sall ñu bari danañ ko wor Macky Sall barke yonent yàlla Muhammad ñu bari danañ ko wor man réew mi lii laa soxla di leen wax aajo yi ngeen di ko jëf te yàlla rekk tax te beneen bi ci topp mooy est-ce que xam nga benn mbir. Hmm. jamono jii ñu toll ci Sénégal am na ay nit ñu weex ñu fiy dugg si. waaw. moo tax gis nga Sénégal ku muus fi ne lépp looy def war ngaa xam fi nga koy dugal war ngaa xam fi nga koy baal ma fi nga koy delloosi ci wàllum kaaraange nag laay wax balaa ñuy xëy di wëri di wër sëñ Mara ñëw kër sëñ Mara fekk ko fa sëñ Mara. <laughs> ci wàllu kaaraange <laughs> ci maa ngi junj ci de Rasoul <laughs> yéen a may dégg. ci wàllum sécurité waaw moo tax tee leen ndaw ñi première. ndaw ñi nañu fegu. réerug ndaw ñi dana am. réer réer. jekki-jekki rek na furaas daan na ñu naan ana diw di ko wër man li may gis ci boppam day gis goo xam ne du gisu du gisu du gisu ñëw di ñëw rek toog yaa ma neex nii di wax déedéet man askan wi laay waxal ak ak boroom kër yi nga xam ne. dañuy toog di ma safoo di ma bëggee di ma tiitaru ñooñu laay waxal ngir ñu fegu ñook ak seenu njaboot ci politique bi léeg-léeg nga gis nit ñu naan waaye antuwaan ak Ousmane Sonko nuñ mën a àndee te di rayante Sonko def nii Antoine def nii man sama wax jali muus la nañ dem ba ca kanam man. li may gis bu ma ko doon wax àdduna tukki révélation bi dafa explosive sëñ Baara moo tax ma ne la yow xam naa ragaloo vaar parce que mm-hmm. am na yu bëri boo ko dee wax doo xalaat ëllëg lan mooy loolu ñu la doo xalaat quand même ñu dem ba egg ci mu euh, deme neen parce que révélation la boo xamante ni bi mm-hmm. mais mais aussi wax nga ni Ousmane Sonko ñu ngi koy fiir ci wàllu lekk mu nekk lu doy waar ci wàllu lekk wala waa këram ci wàllu nduggi bi ñuy ndugg surtout surtout surtout loolu nañ ci fegu nañ ci fegu baax boo gisee ma jóge ci Sonko ci njabootam ci wàllu kaaraange ñëwaat wax la ci politique bi ñi mën a ànd moo tax léeg-léeg safara ak ndox xam nga ànduñu te pourtant am na fu ñuy ànde de te nit ki léeg-léeg boo gisoon tuuti fi la yàlla booleek moom doo ko teg fitna am na ñaar ñoo xam ne kenn ki mu ngi ci opposition bi kenn ki mi ngi ci un poufoir am lu ma doon xool ci seen biddiw maanaam boole gi leen suñ borom boole. te fi ne ñoom ñaar duñ jaaroo taal. nga xam ne au tout lu man di xew ci àdduna da ngay xam ne ñii dañuy daje te danañ jéggoo. mais quand même Barthélémy Dias dafa demoon wuyu ji ci euh, wooteewu président Macky Sall ci 4 avril bi Ousmane demul. waaw at yi am na ñu ci mere. Euh, euh, Dias li war a def la def mooy meeru Ndakaaru. ok Macky Sall moo defut li mu war a def. Hmm? waaw. gars yi lu ñuy xeex lii lu ñuy indépendance lañ doon feetu